mbokk internet yi ñuy teewlu fii ci Univers Info TV Wassare Info ak Dakar Midi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax euh, di leen euh, jox seen wàccuwaay te nag euh, dañoo ñëw fi nga xamante ni moom mooy Rufisque Jokkul Lansar fi nga xamante ni fii la gone gi faatu démb ci marché bi amoon fa fële ci stade Ngalandou Diouf amee donc ñu ngi ci maison bi nga xamante ni fii la dëj bi amee ñu fekk fii nga xamante ni moom mooy waajuram mu jigéen bala ñoo sori rek dañ koy bàyyi mu nuyoo yéen mbokk internet yi ñu sàgg dëgg ci waxtaan bi salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen ñu tàggee la ki nga xamante ni moom mooy surtout tànk bu góor d'abord ñu ngi lay masawu li nga xamante ni moom mooy boobee nouvelle waaye yow en tant que yaay booy euh, mbir mi nga xamante ni xew na euh, ban jàngat nga ci am ak euh, sa ay sentiment jamono ji lan. ah mais la rek bu soxlaa moom ki mën si dara waaw mu ko rek. bette na naqari na tamit waaye muñ rek moom fi da bàyyi ko yàlla rek yàlla fee mu jëm ñu gën a ko fii wala kay ñaanal rek waa ay version ci li nga xamante ni moom la génnee àddina ñenn ñi nee nañ ci stade bi la génnee àddina ñeneen ñi nee nañ hôpital euh, loolu aussi euh, lan nañu si mën a leen ko. ah foofu moom wax dëgg yàlla man ma fi mën a leer dara dama koy yéex a yëg man ci guddi gi ñëpp yëpp nañ ko mu yàgg ma koy soog yëg wax dëgg yàlla foofu moom man ma fee dara lu leer moom. wax dëgg yaa xam hôpital la gaañoo xam stade la gaañoo waaye man daa gis naa ko si bis boobu moom ñëw na fa moom bis mu gaañoo ñëw na fa si ay 11 heures ñëw na fa wax ak man am luñ ko yónni woon si man ma ko ba taliba ba mu jël oto ñu tàggatoo dem foofu laa gëjee dégg ma dégg na lii am na loolu laa si mën a kon dëkk bi moom bàjjanam fii si kër gi maa ngi pare sax mbaa foofu laay sëy waaye bàjjanam la nekkal moom. Euh, match bi bi muy am yëgoo woon ni moom dina dem stade. yëguma ko damay dégg nit ñi di ko wax parce que fii soriante soriante naa fee moo tax match bu amee sax du ma ko yëg sa yenn saa yi mu ñëwee daal suba gi daal maa ngi wax moom xaw ma woon sax dem estaat wër na yàlla xaw ma si woon dara maa ngi kaa bàyyi estaat waaw parce que estaat wóoru mën a man daw damay seetaan rek waññeeku waat loolu laa jot a wax ak moom waaw ñu ngi ko yónni mu jël ko jubal dem walaa nga déggee si moom daal luñ ne rek lii am na bi nga jotee nouvelle bi naka la la def en metti rek metti na moom metti moom ku metti yam kese man ma daanaka man maa ko toog suñu borom waaye metti na trop waaw loolu maa mën a bi nga xamante ni am na ci réew mi jamono ji ñu toll gis nañ démb stade bi eh, birki démb Papa Sow Siteu bi eh, démb it ñu gis li nga xamante ni mooy jéey ji am fii ci Rufisque lan nga ciy wax. doy waar rek xanaa ñu bàyyi daal comme ñoom xamuñu lu fo la ñu jëm a bàyyi daal affaire yi ñuy def bàyyi daal saati bàyyi yooyu yëpp parce que xamuñu lii fo rek la waaw comme xamuñu fo nag ñu jëm kaa tëj rek xam ne dañuy doomu jàmbur rek lañ ciy rey seen yaay yi ñooy perte kese loolu ki nga xamante ni moom mooy sa euh, tànk bi mu leer na kii dundatul nooyatul mooy dernier jour bi nga xamante ne war nga koo gis lan nga yëg. xanaa metti rek déggu ma la metti rek man ma daanaka fa metti waaye bu doon sama ndax dina fa toog ba si kanam. metti rek mënuma si dara nag waaye metti na trop. lan may wax ci moom yan jikko de li ma xam si moom xam naa doo xam moom moom ma ne ko may wax ak sa mujj gi maay dem sa coupé parce que booy wax ak moom waaw da lay tontu waaw waaw su am leneen lu mu si wax waaw kese amul leneen lu si wax nag pare na bari kersa jox ñëpp respect waaw yenn saa yi sama xam moom sax man maa xam ne sax wax ji may wax moom sax dafa bari waaye moom du tontu danaa waaw rek waaw rek lay wax sëgg waaw rek loolu dara waaw. kese loolu laa amoon. moo la gën a nar a moom. métti hmm. na dégguma métti na te lu ma manqué moom bari na trop ba sama sago mu toog tey jii ba wàccee bàjjenam bii soxna waaw mu dem ba yàlla ma egg situation mu yóbbu bàjjenam bii màkka kon màkka laa waxee chaque jour sax ma woowee bàjjenam ma yàlla yow màkk ñu ngi jégalu jubluwuñ si woon lii donc c'était juste pour indi leen li nga xamante ni moom mooy naqare tiis bi xew fii ndax metti na yor sa doom maag ba toll ni ngir rek daal di seetaan yi lii dal ko ci metti na ci bépp waajur buy seetaan rek donc waaw surtout sa taaw dañ koy master bu baax a baax di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ yàlla yërëm ko xaare ko àjjana biñ euh, mën a continuer interview ndax gis ngeen voilà xol yi tooy na lool dañ ko fi yemale rek di leen di jaajëfal bu baax a baax te di ñaan yàlla euh, Sénégal jàmm sax fi autorité yi aussi tamit xoolaat bu baax ni ñuy euh, taxawee surtout ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ëllëgu réew mi war na am noo xamante ni war nañ leen mën a tàttagale ba ñu dem waaye lii jëmul kër lii moom mënul dem parce que violence fépp violence agression sàcc drogue yi yëpp war na mën a dakk ndax xale yoo xam ne seen yoon nekku si ñoom ñoo ciy perte te lii preuve la tey donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen def rendez-vous très prochainement jërë